fédération bi ëmb boulanger yi nekk fii ci Sénégal dañoo fas yéene banque seeni yoxo ci diggu weeru janvier buñ sukkandikoo nag ci ab bataaxal bu bàyyeekoo ci forum bi ëmb jëfandikukat yi nekkee fii ci Sénégal yooyu les boulanger li ñuy sàkku mooy ñu dal di wàññi taxes yi nga xam ne moo nekk ci kaw blé bi. surtout problème fiscalité si yenn intrants yi nga xamante ne dafay impacter si ñun euh, exemple euh, benn produit boo xam ne bu doon jar nee nañ 700 léegi dañ koy jëndee ba 1000 et bi ñuy jënd gaz gasoil bi euh, ay quatre-vingt-dix mille léegi neneen euh, euh, dem na ba nekk deux ou trois fois de plus léegi mu am si yooyu noonu nag ay TVA yu nekk si biir. boulanger yooyee nag ne boo mooyuwul dinañu yokk njëgu mburu mi bu état réagirul ngir nag ñaawlu boobu la yokkute liggéeykatu farine bi moom dal dinay amal ab pétition. duppee ko déedéet ci yokkute njëgu baguette bu mburu bi nekk ci fanweer nar koo yóbbu ba ci juróom fukk. blé bi wàcc na dañu wax dëgg blé bi mu ngi doon jox 500 euros. mën nañu presque 200 225 000 francs léegi actuellement blé mi ngi toll tey. ci 200 euros mooy presque 110 euh, 000 mais loolu yaa xaytuma la comme blé bi wàcc na ñoom lu ñu doon jëndee bi wàcc na. te blé bi moom mooy farine mais ñoom ñoo war wàcc seen bagati fin ñoom kuréel gi ëmb consommateurs yi nekk fii ci Sénégal nag ñoom bëgg nañoo dajale képp kuy yëngu ci wàllu wi ngir ñu dal di indi ay saafara tey mburu mi si boppam waxtaan waxtaan lañ def ba génne TVA bi si mburu mi farine bi waxi nopp dañ droit de douane waxi nopp loolu yëpp waxtaan la kon waxtaan donc donc donc moom mën a indi solution boo xamante ne ñoom si la ñuy njëriñ si lañ ko mën a gis. waaye ñu xam ne rek ne collectif national bi nga xam ne fa la boulanger Sénégal yi nekk ak regroupement des boulangers du Sénégal ñoom nag bokkuñu ci banque yoxo yooyu yee ñuy waajal ndax ne ñoom nanguwuñu benn yoon ne à chaque fois ñu war a amal élection rek dañuy teg ab pression ci état te lu di mel dafay gaañ askanu Sénégal.